di sëriñ bi am fu ñu ci yobbu rek ñu dem mais la fa nek ak lañu wara moytu lañu wara moteli euh am nañ yaakaar ne un an et demi mënu ko passé 18 membres oo ko ba passé charte suñu mag ji la wax Cheikh Ngom <coughs> mi ko def dafa am luñu wax propriété intellectuelle ba tax na it euh, ni mu ko xalaatee doy nañu ba nga xamné duñ ci changer lu bari bâtiment bi fa nek achèvement la laaj am yenen yo xamné ne ñu ko wara tabaxat

dañ ko bëgg a def musée. fa mu ne bu waru fa jóge bâtiment bi ci boppam mu ngi koy wax ba mu nekkee gros œuvre ay 40 ans la ñuy wax léegi. mais alhamdulilah rabbil alamin ba fa ingénieur rek bureau de contrôle seet demee gis nañ ne daanaka structure amul benn fissure. Mm. la ca am nag mooy boo toogee 40 ans même kër yi. boo tegee ñaari yaat ñetti at boo amee étanchéité fa nga defaraat ko. Mm. loolu tax na ba am na fu ndox bi jaar. balaa boobu sooroor bi gis ngeen ko. Mhm. mu ngi foofu war nañ ko terminer am na yeneen ñaari sooroor. Mhm. yoo xam ne prévoir ko ci yokk yoo waaw ñu nga fa mu ngi woon ci projet bu njëkk bi. Mhm. beneen bi it mooy bibliothèque boo xam ne war nañ ko ba pare. ak jumaawu jigéen ñi. ak yeneen toilette yoo xam ne dañ ko bëgg a def ngir sutura ngir mu bari it. demi sous-sol ba nga xam ne. ci suñu yéene bëgg nañu sax bu gàmmu amee ñeneen ñi mun fa dem.